commencé campagne bi te y' a 60 000 tonnes la ba lépp euh, indien yi koy génne dañoo bëgg Casamance dalaat sénégalais bu nekk ak foo mun ti bokk soo yoree sa capital bëgg a liggéey mun a ñëw Casamance dugg fu la neex liggéey comme mbir mi des fii suñu koom-koom. loolu mooy enjeu bi. donc ci gàttal pour résumer sur ce dossier là. Mm-hmm. dugguma ci. waxuma ci. waaye gëm naa lu ñu mën a régler la ci diir bu gàtt su ma nekkoon président la république ko bu soobee yàlla. mais Ousmane Sonko ñu <coughs> constaté mooy sa diggante ak président Macky Sall mosut a neex waaye tey dafa mel ni tey la wàllu gën a ay te li tax may poser question bi sa à dire da nga nekk léegi am cër boo xam ni moom la la waa Casamance dénk nga nekk maire de Ziguinchor te ñu seetlu ci yeneen réew yi di nga gis ku nekk maire wu. ab bërëb nekk ci kujje gi président nekk ci beneen wàll wi waaye mu mën a am ci lu ñu ci njariñu gox googu lu leen mën a boole ba ñuy ànd mhm. des fekk des fois sax ñu gisee bu yàggul ku mel ni Barthélemy Diaz ne woon na ci ay waxam yu njëkk du ma mës liggéey ak Macky Sall mhm. waaye dem na bu mu gi mu ni ay la yéwén bés bu ma joxee maire bi dinaa liggéey ak moom mais yow mel na ni taxawoo ci tànk yooyu parce que wax nga ko sax nee nga benn yoon nga mës a moom muy corona bi. te bu yàlla defee ngay gisanteeg moom it mooy buy génn pale ngay dugg pale ça veut dire que même boo yoree mairie de Ziguinchor léeg-léeg liggéey bi sax war leen boole amul dara loo sekk ak loolu nag defe naa est-ce que du indi njeexital. ci yoonu soor ak ci na ngay gérer dossier yi foofu. non Momar question bi am na solo parce que ça permet de clarifier un certain Sénégal dañoo. ñenn ñi boog dañoo gaaw ci créer li tubaab di wax amalgame léeg-léeg nag ñàkk xam la mun na am il faut di distinguer ñaari mbir dafa am l'état am la politique dafa am l'état am la politique ci terrain politique laa ne àdduna du dox ba ma seq dara ak Macky Sall terrain politique état bi nag état la Macky Sall dafa soxla liggéey Ziguinchor du moom en tant que Macky Sall état bi la état bi foo jaar mu liggéey Ziguin eh, eh, Ziguinchor mais buy liggéey Ziguinchor man bi ma ñëwee ba léegi démb rek recevoir na waa ONAS fekk naa fa ay programme yoo xam ne ci cadre PACASEN ak yeneen ak yeneen dañuy dañuy liggéey financement yu bëri yoo xam ne day ñëw ma jox la exemple yu simple ñu ngi tabax foofu fi mu toll nii benn euh, centrale boo xam ne pour mbalit mi la collecté ko déposé ko traité ko ak yëpp. muy projet bu tudd Prodémud mu am financement étranger banque mondiale ak yéen ak yéen dugal seen xaalis xam nga ni dans le cadre la décentralisation même su amee BAD am na lu mu fa financé lu bëri keneen ak keneen mais da koy jaarale ci état bi parce que benn état mënul nangu ku fooy jóge ak alal rek ñëw dugg ne commune bi di naa xaalis bu dul jeex te xamoo xaalis fu mu jóge mais loolu diggante état la man en tant que maire service technique état yëpp. trésor mooy recouvrer samay impôt impôt yi domaine ñooy ñooy ñooy def assiette sama impôt locaux yi foofu urbanisme fa ne mooy gérer sama urbanisme c'est des services yoo xam ne service état central la mais qui son à ma disposition damay liggéey ak moom kon loolu ci cadre liggéeyu administratif la loolu nag la ca war a am dinañ ko def ni mu amee te bu ko niñ ko gars yi di posé du noonu de dañ naan waaw yow est-ce que est-ce que pare nga pour liggéey ak Macky Sall. Mhm. te suñ koy wax ñoom volet politique la ñu bëgg a dugg. Mhm. déedéet. non man waxuma ko foofu. man xam naa damay leeral. da question bi dafa am solo moo tax ma la ça permet ñu leeral. tout à fait man damay liggéey ak état central état central day liggéey ak man ndax état central mënul ñëw Ziguinchor di fa def ay mbir sans l'aval du maire. xam nga lu wund sama question bi. waaw danga nga ni sànq su ma gisantee gisanteewaat ak moom. day génn palais mu fay dugg. waaw loolu tey jii euh, Ziguinchor yi dañ la def nga nekk seen maire. bu Macky Sall par exemple doon ñëw visite. Mhm. dina ñëw sax ndax lool rek la bëgg. waaw léegi yow nooy Tamba yooy yooyu yëpp nooy def moom. xaaral ma tontu la di nga ko di ko tatagal. di ko tatagal. xaaral ma la di nga def am nga en tant ah, ah, ma tontu la. Ah. gis nga ay dem daaka ba jaaroon dem Tamba ak yëpp yooyu yëpp. waajal bi la man xam naa ni fenn rek la bëgg a ñëw mooy Ziguinchor. waaw bu ñëwee nga tatagal ko. bu ñëwee en tant que maire de la ville. dinañ ko teeru. Mhm. en tant que maire de la ville ça c'est la république cadre bi ma doon waxee man dama ne la gagné nañu coupe du coupe d'Afrique wala sax coupe du monde wala nee nañu corona ñëw na wala nee nañu dañuy inaugurer stade cadre yu mel noonu kenn mënul tax ba man li ñu daan woy soo demul dañ lay boole askan wi dañ naan néeg nii kenn mënul tax ma dem fa loolu xalaatuma ko bu desee lu dul lool rek ñaan naa prochaine fois bu may gisee ak Macky Sall na doon fële <laughs> mais su ñëwee Ziguinchor moi je suis la maire de la ville. Mhm. je le maire de la ville. donc ñaar yooyu bu ñu ko amalgamé parce que tey dafa am état bi benn la mu am état central mu am état décentralisé. Mhm. état central ak état décentralisé dañuy liggéey tey su état central bloqué samay projet man mun naa bloqué ces projet à Ziguinchor. ah oui ay mën naa ko parce que dafa am loo xam ne compétence transfert la man la ko yoon jox c'est la loi elle est au-dessus de Macky sal mhm. donc état mënul ñëw sama dëkk ne maa ngi xolli tali yëpp maa ngi def assainissement te man d'accord ma ci loolu mënul ne kon respect moo ci mun a am ñu liggéey ngir njëriñu population yi boobu politique teg nañ ko fële lan moo baax ci population yi dañ ko def moo tax il faut ñuy leeral sénégalais yi parce que sénégalais yi arak ah moom de ah moom de mu ngi ci déedéet demeewul noonu il faut ñuy comme am nañu occasion ci émission yu mel nii il faut ñu leeral mbir yi ba mu leer nañ tey maa ngi liggéey état central damay toog sama bureau woo des représentants de l'état central ñëw uy si ma may leen lii nii lii nii lii nii ñu def séance de travail suñu paree dem seen bureau. donc loolu mooy liggéey. kaawu géejawaay yow noo ko gisee li xew géejawaay nga xam ni candidat Yewwi Askan Wi moo gagné mais gis nañu bi ñuy fal le bureau fukk ak benn ci fukk ak ñeenti adjoint yi. ñu ngi nekk Benno Bokk Yaakaar ñu ni kat dañuy jëm ci cohabitation yow noo gisee kaawu géej. non amul ñoom dañoo juum. cohabitation mënul am gis nga. code bi dañ ko waxee noonu rek. waaw mais mais. Eh non cohabitation mënul am le maire il est le maire il est le seul titulaire de la signature. Mhm. moo koy délégué ku ko neex. bu ko neexee du ko délégué kenn ci ci ci adjoint yooyu te kenn mënu ci dara bu ko neexee moom rek mooy téye signature am bureau municipal c'est quoi c'est des adjoints yu ñu désigné jox leen ay indemnités yu ndaw ne maire bi de temps en temps réunir leen ngeen échanger. c'est ça le bureau. kon ñoom mënuñu bloquer dara. lan la ñu mën a bloquer mënuñu bloquer dara c'est le ah, conseil municipal qui se réunit pour délibérer tous les conseillers. le maire bu ko neexee mu jël conseil boo xam ne nekkul sax ci bureau bi mu délégué ko parce que le code a prévu adjoint ak délégué. Mm-hmm. man 16 adjoints laa am dañ leen fal mais j'ai désigné 11 autres délégués yoo xam ne dama leen délégué. Mm-hmm. lu ma neex ci samay pouvoir. kon wax jiñ ci wax ni yëpp jaru ko léegi bu ñuy délibéré la ca des nag bu ñuy délibéré li xew ci élection bureau bi bu feeñaatee ak 39 conseillers yi nga xam ni moom la maire bi yore. est-ce que loolu amul lu mu mën a lompoñal. ci ci ci ci fonctionnement. maa tontu tuuti xam nga loolu population Guédiawaye ñëw koy réglé mais balaa ma ciy tontu. Mhm. dama bëgg a wax ni premièrement li mu mën a bloqué ci liggéey bi ak niñ ko présenté eggul foofu benn ñaareel bi man li ma jàpp. dysfonctionnement suñu système bi la parce que nit munoo gagné avec 6000 voix d'écart mais système bi ni ñu ko tëggee ak fi ñuy jëlee conseil fexe ba créer une minorité ci biir conseil bi mooy le système américain nga xam ne di nga gis ku ëpp voix foofu mais kële gagné yenn état centre yenn état clé yi ñu ne kooku mooy président Donald Trump noonu lañ ko fale woon hmm. mais la démocratie par essence on cherche une majorité et la majorité na peut être que numérique à partir de ce moment lii war na tax ñu xalaataat système bi li tax ñu defe defee ko ni problème am na ci il faut ñu dellu ci fondamentaux yi nit bi population yi tànn ne kii moo ñu doy ba mu rawee six mille voix kooku système bi warul bindoo noo xam ne mun nañ ko en en même temps minoriser ba nu mën a liggéey loolu benn problème la ñaareel bi nag bu dee nag euh, ni ñuy doxee ci conseil bi man xam nga li ma gëm ki nekk maire tant que mi ngi liggéey pour population bi te loolu laay xelal Ahmed Aïdara mooy la nekk au service de sa population na coller à sa population conseil municipal conseil municipal rek la mais lu muy def na ko population bi xam fu mu bëgg a jëm nañ ko xam su dee li mu yëkkati njëriñu population bi la population bi xam ko mu dem conseil bi bloqué ko bloqué ko pour de questions politiques loolu population géejawaay ñoo war a jël seen responsabilité parce que bu boobaa caaxaay na nañu politique ba yàqal waa géejawaay mhm. ça c'est une réponse strictement politique c'est pas juridique li ñu euh, cëraloon ci wàllu waxtu léegi mu jeex man dama bëggoon rek daal ñu koy ndarkeppe ñu xuus ci wàllu élection législative yi ñu dëgmal yéen ngeen bokk ci coalition bu mag di coalition Yewwi Askan bi ndax ci législative yi ñu jëm parce que dafa fas yéene demal boppam wala da ngeen di àndaat mais soxna si ñun dañoo bokk ci coalition bu tudd Yewwi Askan Wi coalition bu am doole bu dëgër nag hmm. nit ñi dañ leen di dégg léeg-léeg ñuy wax ñun dañuy tëju fi ñu toog fi ñu toog di rek léeg-léeg nga gis benn titre journal coalition Yewwi Askan Wi dans les eaux troubles les ambitions plombent peut-être suñu xamoon ñun ñu seq suñu xamoon ñun lu ñu seq eh, hmm. ak li ñuy fonctionner defe naa yenn wax kacaw kacaw yi duñ ko wax coalition bu dëgër la ñu seq politique waaye séqit ci àdduna man ñi ne ci coalition bi ñii samay mag lañu ñii sama yaay lañu ñu séq lu fort a foor a fort loo xam ne sénégalais yu bari xamuñu ko ñii samay moroom lañu ñii samay rakk lañu tuuti xam na ñu ma ci mag nag ñoom booy dëccee yooyu magee naa leen ay un an yooyu <laughs> kon voilà mais am na lu ñu séq loo xam ne dafa dépassé politique politique nag moo tërëji mën nañu dem ba ñu ne benn génn na waaye ñu ne coalition bi tas na loolu mënul am nga gëw ma ko man. nan coalition boobu nag dañoo taxaw mu am ñu jóg ne coalition bi du am dara mu am ñu ne c'est l'occasion d'ailleurs ñu rendi définitivement cette opposition. radicale radicale anti-républicaine ñu dem ci télé yëpp wax du ngeen am dara ñu dëgg ci élection yi génn yàlla may ñu lim ñu may. ba ñun ñu am yaqin ni élection yi ñun ñoo ko gagné kon ban intérêt la ñu am coalition bi ñu ñu naan Pastef dem na wala taxaw dem na wala PUR dem na wala ànd dem na wala PRP euh, dem na wala euh, grand parti dem na déedéet tey la gën a dëgër la ñu war a wax kay mooy. <coughs> est-ce que investiture ndax dina gën a yaatu. Mm-hmm. puisque ñu bëree ngi émettre vœu. ne dañu war a gën a yaatal na opposition bi daje. ñun nag àttooguñu si. ndax dina gën a yaatu ak su gën yaatu ñan la war a concerner débat bi foofu la nekk de waaye débat bi nekkul ndax coalition bi ndax kii dina dem moom dong élection législative wala que dina dem élection législative damay fàttali nii bi ñuy créer coalition bi charte bi dafa leer dañu bëgg a ànd élection locale continuer élection législative continuer ba présidentielle donte am nañu ñaari candidat wala ñett cadre bi dañ koy bàyyi superviser ndoo élection yi daal di bind suñu benn charte ni def suñu programme minimal ne nag ku yàlla def mu mu mu dem ñeneen ñëpp dañuy def bloc ñu liggéey loolu moo nekk suñu charge. te amul kenn ku ko tri maintenant nag ñi ñu yaakaar moom bi nag ndax jàppoon ne mën nañ leen fa galgalaat ñun parrainage bi doon.